mi ngi noonu. maa ngi jégalu bu baax a baax ci qualité image yi ni mu demee la. on est parti d'un seul coup. c'était pas facile le véhicule était bondé. bondé de reporters. di si jégalu bu baax a baax. mi ngi noonu. mi ngi noonu. maa ngi doon wax ni tout à président Ousmane Sonko. woowul kenn ci jumaa ji woowul kenn ci jumaa ji nit ñee ñëw ci jumaa ji julli taxaw xaar ki nga xamante ne moo di président Ousmane Sonko di fàttali ne mitingu Mbàkke bi mitingu Mbàkke bi di leen wax ne c'est confirmé c'est confirmé le meeting de Mbàkke est confirmé la Cour suprême donne raison au parti PASTEF au président Ousmane Sonko fépp foo leen mënti nekk fépp foo leen mënti nekk ngeen jege Mbàkke fépp foo leen mënti nekk ngeen nekk ci Bawol bi fépp foo leen mënti nekk ngeen nekk dakaar ak fépp ci Sénégal xam leen ne mitingu Mbàkke bi tey dafay am président waxoon na ko président waxoon na ko ñoo ngi nii ci Touba. ñoo ngi nii ci Touba gars yi jafandu leen gars yi jafandu leen les forces de l'ordre les forces de l'ordre obligées obligées de soutenir mi ngi noonu Touba ngi noonu génn na Touba ngi noonu accueil chaleureux accueil unique waaw ngi noonu c'est on est on est dans des conditions extrêmement extrêmement difficiles des conditions extrêmement difficiles, extrêmement difficiles, mais on le fait avec le cœur. dañ koy def ndax suñu xolo ko laaj waaye jamono ji metti na ci oto bi waaye président Ousmane Sonko moom moo ñëwoon julli si Touba Mbacké Touba ñëw teertu ko julli ak moom jot na gisanteeg saafonteeg ziar sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa Sëriñ Touba président Ousmane Sonko jot na saafonte na ak moom toog nañ lu yàgg pratiquement quarante cinq minutes après la prière ngir ngir jox orma di mu jox jumaa ji bàyyi ba sëñ Muntaxa sëñ Touba génn ci jumaa ji ba dem mu soog di génn li am na ñëpp gis nañ ko waaye mbir boo xamante ne la xam naa tey président Ousmane Sonko donte bànneex a ngi ci am na lu ko metti ndax lii bugg ko ci biir Touba te waxoon na ko waaye nit ñee génn nit ñee génn mbëggeel ak cofeel ci xol la kenn mënu ko contrôler woykat bi wax na ko waaye fii xam naa ne ñoo ngi tub bu baax a baax ci li xew tey Touba président Ousmane Sonko mi ngi tub bu baax a baax li nga xamante ne moo xew tey Touba ndax gënalu ko waaye nag mbiru Sénégal moo demee nii sénégalais yi ñoo toll foofu ci président Ousmane Sonko tey Touba wax nañ ko ko xam na ko gis na ko dañ koo namoon ba yàgg bëgg wax ak moom yàgg bëgg saafonte ak moom tey lii la yàlla dogal mu am fii nii nga xamante ni moom moo di Touba. jumaa ju yaa ñi jaagi nii nga xamante ne ah, borom cant yi moom moo ko moom moo ko fi tabax sama cheikh bi sama cheikh bee ko tabax cheikh bee ci moom moo tabax lii ñu ngi jannatu maxwa ñu ngi progressé destination Mbacké destination Mbacké avec le président Ousmane Sonko qui vient d'être euh, rétabli dans son droit le parti Pastef la ñu rétablir ci droit am mooy am na droit manifester cour suprême mu ni leen li ngeen def loolu préfet bi tegoo ko ci fenn donte amul xam-xam sax ndax li mu visé amatul président Ousmane Sonko bind démb ni patriotes yi on se donne rendez-vous à Mbacké le pacte de Mbacké aura lieu le pacte de Mbacké aura lieu aujourd'hui vous allez voir quelque chose d'inédit lu exceptionnel lu mësta am loo xamante ne du ma ne mukk mën na def ndax loolu président Ousmane Sonko dong kap moom kese ko mën ci Sénégal li nata xew Mbàkke tey di ngeen gis loo xamante ne donte sabotage am na ci donte interdiction am na ci def nañ ci lu ne waaye yàlla moo yor agenda bu baax bi yàlla moo ni tey Mbàkke dafay am tey président Ousmane Sonko dina jullee fii nga xamante ni moo di jumaa ju tedd ji ci dëkk ju tedd ji nga xamante ni Touba Mbàkke ñoo ngi nii war a dem direction Mbàkke direction Mbacké le président Ousmane Sonko à Mbacké ça sera tout à l'heure à partir de 15 heures le temps que notre task force les logisticiens ay xale yu xarañ defar scène bi defar lépp lu ci war ñun Pastef kenn duñu bett nous avons les moyens de notre politique rendez-vous à Mbacké rendez-vous à sera exceptionnel les gens ils continue de sortir femmes enfants et vieux ñi ngi ci kaw tali bi Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko moom mooy atum Sonko 2023 c'est Ousmane Sonko 2024 c'est Ousmane Sonko la foule qui sort de manière spontanée suñu mbokk naar yaa ngoog xaw ma naar lañ xaw ma lu ñu doon waaye macha allah Sonko ngi noonu Sonko ngi noonu lii kenn mëndu ko am lii mësta am waaye tey ci ngoon du ma ne mukk ku mën na def ku mën na def du am tey ci ngoon ndaxte benn nit ko mën mu di président Ousmane Sonko le président de la jeunesse le président du Sénégal le président de notre souveraineté le président de l'avenir le président de l'Afrique unie et surtout d'une Afrique décomplexée man mën naa ko wax ndax xam naa sama waa ji président Ousmane Sonko direction Mbacké Mbacké tey waa Bawol yéen a aaye dëkk baa ngi nii nit ñaa ngi génn xool leen ni ñuy génnee ci koñ yi di daw di yëkkati loxo yi ngir sargal ngir saafonteeg ki nga xamante ni moom moo di le président Ousmane Sonko le rendez de Mbacké aura lieu le pacte de Mbacké sera scellé aujourd'hui tey loolu kenn mun ci dara kenn mun ci dara président Ousmane Sonko destination Mbacké julli nañ ba pare am nañ suñu autorisation mi ngi noonu mi ngi noonu te kenn xamul suñu itinéraire kenn xamul woon fan la ñuy jaar waaye askan baa ngi ñuy seetaan ci live yi askan baa ngi ñuy seetaan fi nga xamante ni moo di Mbacké mbake ñi ngi ñuy xaar Touba mi ngi ñuy xaar Bawol mi ngi ñuy xaar Ndindi mi ngi ñuy xaar le rendez-vous du Bawol aura lieu le pacte du Bawol aura lieu le président Ousmane Sonko yow fi nga xamante ni moo di suufu bañkat bu ñu nee Serigne Touba ñu ni c'est le premier souverainiste africain en chef koo xamante ne képp koo xamante ne jóg nga nga ni tey yaa ngi défendre souveraineté africain mën naa la ne ci Serigne Touba nga ko jëlee bañkat la tey Serigne tey ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko ñëw fii bu ñu nee Cheikh Anta Diop ñëpp xam nañ ni fu lu mu bokk ci Bawol lu mu bokk ci Mbàkke Mbàkke gi waaye tey bu ñu nee président Ousmane Sonko ñu xam ne tey Daaru Musti la bokk ñu xam ni tey Bawol la bokk ñu xam ni tey c'est le prototype de Sénégalais le plus complet le Sénégalais le plus abouti l'homme qui réconcilie le nord et le sud l'est et l'ouest loolu dama koy wax ci dëggantaan du ay jargon yu neex koo xamante ne mi ngi jógee maama mi ngi jógee Podor Podor Ziguinchor Ziguinchor Xombol Xombol Paal pal Dakar Saint-Louis du Sénégal Ousmane Sonko, c'est le Sénégal. Ousmane Sonko, c'est l'espoir de ce peuple. Ousmane Sonko, c'est notre avenir. xale yaa ngi génn xoolal ni ñu jaaree ci biir koñ yi la ñu jaar pour ne pas nit ñi topp ñu ci li nga xamante ne moom mooy les grandes waaye askan baa ngi génn di nuyu di saafonte di jubilé ñi ngi tëgg bool yi le président Sonko wallaay Touba ngi nii Touba ngi nii Touba ngi nii Mbacke ñu ngi ñëw du ma ne mukk mësta am ma ne mëkk lii nga xamante ne ku mën na def ku mën na def mënu fi ne kenn moo ko mën moo di président Ousmane Sonko ñu ngi noonu lisez cette joie xool leen joie bi mi ngi noonu notre camp de base ñoo ngi nii fii la ñu war a déparé jóge fii dem Mbacke le pacte de Mbacke aura lieu le rendez-vous de Mbacke sera inscrit dans les annales de l'histoire politique du Sénégal de l'histoire tout court du Sénégal Sénégal agsi nañ fi ñu jëm fii lañuy ñuy arrêté live bi waaye gis ngeen fii mooy suñu résidence fii la ñu war a toog fii lañuy ñuy war a déparé seeti waa Mbacké seeti askanu Sénégal seeti askan bii di bañ président Ousmane Sonko mi noonu Diba, diba. Diba. may ma la may ma la teewul teewul teewul teewul lii gaan andoor sama Oh,